salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu nuyu leen daal di dellusi ak yéen ci seen chaîne info 15 point com comme niñ koy baaxoo di defee ay bés yu ne ñu daal di am benn thème bu ñu indi daal di ciy waxtaan ak yéen tey nag euh, ñu fës yéene waxtaan ak yéen ci mbir mi nga xamante ni kii di Kounkandé wax na ko mu nii dafay daal di xar géej gi donc il faut que ñu xam kiy wax d'abord kan la mbindeef la moo xamante ni. am na ay seede yoo xamante ne nii ay nit def nañu ko ci moom ni que ni kat jot na jot na leen a arnaqué kon donc ñi nga xamante ni ñooy senegale yi dafa jot ñu daal yeewu dafa jot ñu xam xàmmee kii di wax ni ab sëriñ la ni que ni moom mën na xar géej mën na def nàngam mën na def nàngam suñu yoon newul ci ab géej gu muy xar su ko defee ku ne nga daal di yeewu xam ni kii. dafay def mbir maanaam dafay wax dara mën a sukkandiku ci li muy wax ngir mën a am leneen lu muy defar parce que le fait que mu génn di wax déjà nit ñi di ko gën a miin ñii di ko gën a xam léeg-léeg ci lay mën a profité ngir mën a am leneen lu muy def ngeen ànd rek daal di déglu seede yi nga xamante ni soxna si def na ko ci moom su ko defee ñu daal di continuer. am na benn benn marabu boo leen di gis du sax marabu boo leen gis fan yi ci YouTube bi muy sol ay yëre yu xonq ak def ay lantiw ay honneur au patrie noonu. te xees waaw xees nii. Mhm. yenn saa gars yi di ko xaw tooñ yooyu noonu. Mhm. waa ji daal benn femme bu nekk Allemagne moo seq moom mbirum liggéey. liggéey travail wala pour mu. liggéey ñaan yooyu noonu. waaj ji moom ay jinne la yor jinneem Nigéria la nekk da koy liggéeyal ay jaaroog ay affaire ak wërsëg yu ubbeekoo yooyu noonu. Mm. ba yo femme bi yónnee ko lu tolloog neuf cent euros. ay cinq cent quarante millions. na ko. mu yóotu ko. te jox ko lu ko doon liggéeyal. yónnee na ko ay ay affaire mais daf ko jox délai parce que moom def daf ni moom pouvoir lay liggéey ba nga ko déggee ci YouTube bi sax la lay liggéey bi ñu femme bi ba jox ñu élément yeeg reçu mu ko yónnee xaalis yëpp man damaa woo waaj. parce que numéro yi nga xam moom la def ci YouTube bi. Mhm. WhatsApp doo nga ci installé du ci wuy appel. bi ma jotee téléphone am normal dama ko woo moom Kunkande présenté wu expliqué ko situation bi mu coupé téléphone Kunkande moom Kunkande ma jël élément yëpp envoyé ko ci WhatsApp am mu bloqué WhatsApp ba. moom Kunkande moom Kunkande. léegi Kunkande moom lu mu def femme bi nekk Allemagne. déglu. ñeent fukki at ak ñett maa ngi ci Allemagne kii Mamadou Kuli Kande dama ko gisee YouTube bi muy wax den bi ma seetee waxam daal ma ne kii ci ñoom ñoo dee def affaire ñu gaaw ba pare lim ci boole ne liggéey bu ñuul la yooyu soo parce que nit ki mu ngi jaaxle den ma ne ok xaaral ma contact ko léegi bi ma ko contacté mu seetal ma njëkk bi ma seetalee mu ne fanweeri euro mu yónnee ne naa yónnee xaalis bi foofu ma yone ko fa xaalis waxtu daf la dee yónnee waat beneen tur du yiw ne di same two den maa ko doon kole ci nomba bi nga xam ne mu ngi ci amee five times sama four times four or five times one foofu laa ko doon jotee ci nomba boobu noonu moo tax nomba baa ngi nekk four times one foofu laa ko doon jotee léegi bi ko defee ah, ma contact ko bi ma seetalee be pare ma ne ko pour mu dimbali ma parce que dama jaaxle trop fu nekk daw naa fa ak yooyu dama bëgg a pour suma yëfi jëkkër ak suma wërsëg mu ibeeku den mu ne naa ko jox six benn téeméeri euro dafa jënd cuuraay cuuraay bi loolu laa ma ne ko su weer bi dee naa la ko yónnee gannaaw gi ma àbba ci suma i xarit parce que ñun ñu ci fi mu nekk lockdown boobu noonu in mai la woon den ma ne ko dinaa la ko yónnee maa ko yónnee xaalis bi on the ma ko ko yónnee ma kool ko ne mu ma ne ko yónnee ma tur bu ma la ko yónnee mu yónnee ma tur ma ko ko den bi ma yónnee xaalis bi ma foto ko yónnee ko ko mu ne ma ok gis naa ko ko den mu ne ma dina ma kolaat baak four o'clock dafa busy den mu afterward no ci gannaaw gi ci laa ko yónnee waat mu ne dama ko dama soxla jaaru bi nga wone ci YouTube bi ne dafa ibi wursaga yu kenn xamut dama soxla jaaru bi tamit den mu ne jaaru bi mu ngee jar 350 ak li ma ko yónnee yëpp bagage li ma yónnee bagage yi yëpp daal affaire bi mu ngi nekka 900 euro juróom-ñeenti téeméeri euro loolu la nekka léegi bi ko defee moom mu ne ma dina ma yónnee suma bagage bagage yi ma yónnee yónnee naa leen photo yi di ngeen ko gis yónnee na ma benn kayit bu mag boo xam ne àgga na comme taabul ñu ko xaatim benn fees tepp mu ne naa ko xooj ci ndox xaw ma ñetti fan den ma door di ko sangoo den naa ko sangoo juróom-ñaari fan bi ma ko sangoo juróom-ñaari fan afta ma ne ko léegi sangoo naa ko juróom-ñaari fan moom lim dee bañ daal soo ko laajee ne ko kañ la fan yi nga wax parce que moom daf dee wax ci télé bi ci YouTube bi ne ah, juróomi fan wala juróom ñaari fan borom dina gis lim la wax den soo ko laajee loolu rek bon yaxa nga waxtaan bi den ci la door di am kilis kalas dugga na fii génn na fi gannaaw gi dafa ma bloqué ba tey jii maa wax a yen ni dama ko dégg gis ci suma status bi wante su ma ko kolee o dama yónnee ko voicemail barka démba yónnee naa ko voicemail ibi na ko maa ngi ba tey liggéey bi nga ma defal gisuma ko defal sa liggéey yaa parce que moom xam na li ko ti li ma tiye su nekku doon corona bii nii ñëw naa Sénégal te su ma dem ñëwoon Sénégal dama dem tukki menal polisaay parce que li moo def dafa nax nit ñi nekka ci àll bi fii ñu ngi na parce que aw ma xaalis maa ngi toog suma kër liggéeyu ma ngir jaaxle rek moo taxoon ma yónnee ko xaalis bi. mu mel ni yéen a ko déggandoo kon kii nga xamante ne nii moo taxaw seen kanam nan leen day xaar géej gi donc ñàkk fayda rek weesuwul ci di ko déglu naan maa ngi xaar bés ba jot maanaam ñàkk fayda weesuwul. nga toog naan yaa ngi xaar ba su tam xarit ngir xam ndax mën na ko wala mënu ko ñàkk fayda rekk weesuwut loolu donc li nga xamante ni wax na ko moom la concerné mais sénégalais yi nañu yeewu nañu xam ni que ni ah kii di wax lan lay chercher lan mooy objectif am mais nit ñi wax nit ki taxaw wax rek ni mën naa lii mën naa lii rek su ko defee ñëpp jël ko euh, naan dinañu xool dana ko def ak du ko def li mu wax lépp du si def tous c'est un gars c'est gars boo xamante ni nii triyande na ay nit ñu bëree bëree bëree bëri ci ay kàddu yoo xamante ni jëlee nañ ko ci ñoo xamante ni nii wax nañu ni triyande na leen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni wax nañu ko donc euh, kooku nag su ñëwee ni la damay def lii yow nga nar a tardé ci loolu su boobaa problème day am su fekkente ni kay moom dafa nii nit la koo xamante ni nii ku bari wërsëg la wala boog ku am xam-xam la jërul mu ñuy dikk naan ñu bësutam xarit dinaa xar géej gi labal naa féqi su ko defee moom bu fekkente ni li muy wax mën na ko da ngay dem pour xar géej looy tàggu nit ñi génn si ay média dinaan leen waajal leen jour tel damay dem xar géej gi déedéet xëyal suba rek ànd ak média yi dem directement daal di xar géej gi su ko defee nag ah dinañu ne ah kii kat mooy waaja donte ni sax loolu euh, ñun suñu xel xalaatul jigewut a xalaat ni sax mën na lu ni mel mais su boobaa su ko su doon li muy wax dëggu na ci moom ci façon boobu la koy defee waaye daal ñun fi ñuy waxee mooy sénégalais yi nañu gën a bàyyi xel te xam ni ñi nga xamante ni dañu jóg ngir di def ay ar nag ñi ngi koy commencé di jaar ci façon bu ne ñi ngi koy commencé di jaar ci fànd wu ne kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax yow da nga jóg ni que ni kat da ngay dimbali ay nit da ngay faj dèjà yaa ngi jël sa numéro def ko ci réseaux sociaux yi pour fooy waxee rek ñu teg sa numéro pour ki nga xamante ni dafa am ci yow soxla mu mën la jot waaw bu fekkente ni kooku xam-xamam lu wér la lu sax la jarul def numéro na toog fi mu toog rek génne bayram su ko defee ñépp ñëw wut si ko mu mel ni kon ñi ngeen di dégg ñiy wax ci ay réseaux sociaux di wax ni ay sëriñ lañ yéen sénégalais yi bàyyi leen xel bu baax a baax a baax koo ci nar a jëflanteeloo ku ne na ko seet seetaat ko laata nga ci dugg du ñu ne nag kii wa xam wala kii wa xamul ndax xamuñu ki ci xam ak ki xamul waaye nag yéen ñi nga xamante ni da ngeen di dépenser seen ay alal ngeen bàyyi xel bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ni itam dañuy nax nit ñi di ci dund nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax kaddu bi nga xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa wax na ko mooy que ni ëllëg yow mal xiyaam ku ci nekk rek danañu la laaj sa alal fan nga ko jëlee ak fan nga ko dépensé maanaam laata ñu lay laaj fan nga ko dépensé daañu la laaj fan nga ko jëlee waaye nag ki nga xamante ni yow ëllëg da nga taxaw jàkkaarloog borom bi ñu ni la balaa nga yëkkati benn paa ñu la laaj sa alal fan nga ko jëlee nga ni ah man de dama doon tiryande bés bu ñu jàkkaarloo ak borom bi kenn du fen ku ci nekk la nga daan jëf di nga taxaw wax ko ndax cër yi ñooy taxaw ni ah man de mus naa jël nangam làmmañ bi ni ah man de mus naa wax nangam tànk yi ni ah man de mus naa dem bërëb sàngam su boobaa yooyu yépp dinañu taxaw wax waaye nag ngalawaay mbokk yi bés bu yàlla sàkk ñu gis borom bi subhanahu wa taala jël ay mbindeef mu jël seen baqen moom mu leen ko joxoon waa xanaa duñu yéemu mbokk yi léeg-léeg ngay ànd ak nit nga xëy bés ñu ne la wuy ji na boroomam lii su la yéemul ba nga war a delloo sa xel ci sa borom ana lan moo lay yéem borom bi subhaanahu wa taala wax ñu si alxuraan xanaa wëroo leen ci kaw suuf ngeen gis nit ak ni mu yéemee ngeen gis kook na ak lu ne mu wër leen ni lii borom bi subhaanahu wa taala rek moo ko mën nga gis garab biñ koy saxal ba bi muy nekk mag bay am ay fruits mu wër la ni borom bi rek moo ko mën amul keneen ku ko mën nga xool asamaan gis ni mu bindoo di nga xam ni que ni carrément am na leneen lu lëlu ci ginnaaw mbokk yi nañu xalaat bés dina ñëw ñu dem ci kooku muy buur bi subhanahu wa kon nag lépp lu waay di def rek na nga ko xool lépp lu waay di def na nga ciy bàyyi xel bu baax a baax kon ñi nga xamante ni nag tey dañuy génn di wax amaana kooku di wax wóor na ko ni la muy wax sax du ko def mais na ko wax rek pour objectif am mu mën ko atteindre donc kon su boobaa euh, dina jaadu ci ku nekk rek ngay mën a bàyyi xel beneen bi sopp itam mooy que ni la mu wax bu fekkente ni defu ko su boobaa wax na loo xamante ni du dëgg te lii nga xamante ni nii yenent bi jàngale na ko wax ko ci alkazib mooy wax lu dul dëgg li ci daje mu mel ni lu bëree bëree bëri la kon nag képp koo xamante ni yaa ngi wax rek war nga wax dëgg donte ni sax dañuy jël paaka di ko teg ci sa put kon kooku li nga xamante ni nii Euh, moom lay wax bu fekkente ni dëgguwul ci moom na xam ni que ni li nga xamante ni moom la yenent bi jàngale moom déjà tegee na ko côté te lu gën a yéeme mooy ci ñun waxam bi ñu dégg yépp dégguñu ko fenn fu mu waxee ni dinaa def nàngam incha allah bu neexee borom bi parce que ku ne xam na ni lépp lu waay sumb bu fekkente ni borom bi àndu ci du dem mbokk yi kon nag nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax ñuy xoolaat bu baax a baax a baax léeg-léeg nit dina wax dara fekk am na loo xamante ni loolu la si jublu mbokk yi kon su boobaa ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, mbokk yi lii mooy li ñu leen doon indil tey euh, du ñu def lenn rek lu dul di leen jox dig daje beneen yoon ci seen chaîne info 15 point com.